Uras Info, Ribari Gao. Tewor, Uras Info, l'info à temps réel. Uras Info. Djangat Yukhod, Tedegu, notre force, le traitement de l'info. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله سيد الأولين والآخرين نبي الرحمة وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن أصحاب رسول الله وعن الختم المحمدي المعلوم والبرزخ المكتوم أبي البركات والفيوضات سيدي أحمد ابن محمد ابن سالم التجاني وعن خليفته وارث جميع أسراره وصاحب فيوضته سيدي ومولاي ومولى الفائزين إبراهيم بن الحاج عبد الله وعن خليفتي هذا الأخير سيدي وشيخي علي بن الحسن وبعد مبقى جلدني سن بقى محمد لمن ما وقتنا جين تي قديم ما جينا خمنة مملين دعمل تماي قديك ليلة الختمية مي قد قديك فك جرب نيت تي ويرو ما جبي ديرو سفر ديرو شيخنا تجاني رضي الله عنه ndax wax ne ci weer wi sax ci la gane àddina kon weeram la yàlla jotal ko ci itam maqaamam bi nga xam ne moo gën a màgg ci mboolem maqaama boo xam ne walu yàlla mas nga ci yéeg ndax wala yi ko jiitu woon yëpp maqaama bi gënoon a kawe ñu ko doon séentu mooy maqaamal maqaamal xatmiya ñu ko woote sax bariwuñ waaye am na ñu ko woote te yàlla jagleel ko maqaama boobu itam te mooy maqaamal xatmiya nga xam ne maqaama boobu la ñëpp doon sent moom nag mu passé maqaamal xatmiya yéeg ci maqaamal muy maqaama boo xam ne dara feeñu fa kenn yeru ko kenn xamu ko muy maqaamam bu mag boobu nga xam ne ibnu baaba wax na ko maqaamul maktumu an kullil waraasi wa nabiyi maa waraahu wara ne la maqaama la boo xam ne dañ koo nëbb kenn yëru ko kenn xamu ko ku dul yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy maqaama boobu nga xam ne mooy maqaamal xatmi katmiya kon yàlla def bi ko Cheikh Tidiane yéegee di ko xam ko fonk bi boobu yàlla ci mbaaxam andil ñu suñ baay Xasan Dem Cheikh Dem mi nga xam ne qutbun min aqtaabil tariqati tijaniya eh, ci aqtaabu tariqati bi ak aqtaabul islaami ci la bokk liggéey liggéey ci lislaam yàlla jagleel ko yankiwal ko moom mu dundal ci façon boo xam ne façon bu yéeme la daan ko def fële ca làmbi tukkuroor fa ko daan defe di ci ballal ay ishaaraat raaiqa raayaa eh, di ci bu bu ñëwaan ñëpp di ko seetaani mu koy dundal di ko di ko béelal kon ci baax ak góor gu màgg googu nga xam ne maqaamam ci yàlla yàlla rek ko xam déggam ak xam-xamam yàlla rek moo xam fu xam-xamam toll ci xam-xamu shariatu xam-xamu xaqiqatu xam-xamul asraar lu nekk la ko yàlla jagleloon mu nekk ci géej te li may wax ni ñëpp xam nañ ko yàlla def ñu itam ñu miinoon ko mu nekk euh, jant ci tariqa bi leeral ci lu bëree bëri bëri yu lëntoon bind ci ay téere yu bëree bëri bëri bëri rek moo ko mën a fay yàlla nañ ko yàlla fayal moom Cheikh Hassan Deme doon liggéey nag ci toolu Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci biir tariqa bi te mooy fayda bi ci la ko yàlla boole qisaam ay jaar-jaaram xaj na ci yeneen waxtaan mën na caa dugg waaye guddi gii nga xam ne moom la ñu sosal tey moom moo ñu ko fi sunnaal baal ñu ko fi njabootam gu tedd gi itam te ki nekk ci bopp bi mooy Cheikh Mouhamadul Kabir ak Cheikh Mouhamadul Habib Cheikh Mouhamad Cheikh Abdoul Baqi Cheikh Omar ñoom ñëpp ak Taha ñoom ñëpp njabootam gi yëpp njabootam gu tedd googu di ko wéyal di ko doxal Euh, ba ba mu yegg si fi nga xam ne yegg na fi mu nekk ndam ci lislaam bi nekk ndam nekk ndam itam ci tarixa bi euh, yàlla def na dundal nañ ko ay at oustaz Ibrahim Mahmoud Diop daana fa teew di fa def ay waxtaan yu bari ci mu tarixa bi yu ci bari am na ci yoo xam ne fekkee nañ ko mu ne waxtaan ci waxtaan yu am solo ci ñi nga xam ne mooy mooy machaayix silsila zahabiya euh, te mooy silsila bi nga xam ne moo jokk ci Seyd Ali Tamasini silsila boobu jëloon na ci ñu bari ñu mel ne Abdallawi ñu mel ne Sid Ahmed Sukayrij ñun na leen waxtaan ci ñoom feeñal fa seen i mënoo rek seen i xam-xam gannaawam itam ay waroom xam-xam yu bëri danañ ci def ay waxtaan diko dundal loolu yëpp daal mooy sunna bi nga xam ne Cheikh Hassan dem moo ñu ko fi bàyyil tariqa tijaaniya nag nekk tariqa boo xam ne tariqa xam-xam la tariqa la boo xam ne mooy tariqatul ulama tariqa la boo xam ne ay savant wu kese ñoo ci nekk démb ba tey nag nekk tariqa boo xam ne itam fu mu yegg rek lislaam yegg na fa wadama ci téere boobu ñuy wax xaadirul islam aalamil islami te amir chakib araslan bind ko da nga gis mu waxal la ñu bari ñoo xam ne yaatal nañ lislaam te nekk ay waa tariqa bi maanaam bokk ci tariqa bi ku ci mel ni Cheikh Omar al Fouti liggéeyam bim liggéey ba libéré lu bari ci ci Afrique li ko dalee Sénégal ba Sokoto ci Nigéria dem yam fa dem xam-xam yu mu bind yaatal gi mu yaatal fédéré gi mu fédéré ay mbooloo yoo xam ne dañoo tasaaroo woon loolu yëpp borom téere boobu wax na ko wax na itam importance bi nga xam ne liggéey boobu si alxaaji Omar Fouti al Qutbul doon liggéey euh, liggéey boobu yëpp ci biir mu ko def ci biir tariqa tijaaniya kon wane na loolu wane na itam ne tariqa ya eh, boo demee ba tey ca ca charq maanaam fu mel ni turc nee na atraak yi ña fa nekk ay tijaan participer nañ lool lool lool am nañu rôle bu mag a mag buñ liggéey ci libéré réew ma waaw ak ak ak eh, taxawal réew ma ak dundal ko ak fond ak fondé ko wax na ne ñooñu am nañ ci rôle bu mag a mag a mag kon tiijaan yi nekk foofu ca Turquie euh, te bari nañ fa lool wala boor côté Ankara bari nañ fa lool ñooñu nee na liggéeyoon nañ liggéey bu rëy rëy rëy ci combattre noon yi ak taxawal seen réew ak taxawal seen euh, patri patrie nga xam ne daal ay patriote lañ kon ñi bëgg a potaxlu di tuumaal tariqa tijaan di wax ne tariqa tijaan dañoo nekk ñoo xam ne toujours dañuy ànd ak buur ñoom nguur yi rek la ñuy àndal nekk ay ñoo xam ne dañuy sibooru moo tax bi fi tubaab bi ñëwee ci Algérie dañoo dem ñoom ñëpp rangé wu ànd ak tubaab bi ànd ak français yi loolu ñu ko koy tuumaal ñooñu xamuñ xamuñ tariqa tijaaniya waaw dañ ci wax lu bari nag ba ci wax sax ci Ahmad Amar nag sëy boobu mu sëyoon ak benn tubaab bu ñuy wax orli yooyu yëpp dañ ciy potoxlu di indine dafa nekkoon ko ay ay umala lañ bi maanaam ay agent lañ ay agent wu tubaab bi lañ loolu nekkul amul boo liiraatee xoolaat da gis ne ñi jaamaarloo ak tubaab bi la ko dalee ca charq ca turquie fa ma yoon fa ma doon wax léegi ba ci fii ci afrique ak sax ci même algérie googu ñuy wax ay magu tijaani bari dee nañ ci xeex bi nga xam ne dañ ko doon xeex pour libérer Algérie xeex nañ ci xeex yu bëree bëree bëree bëri bëri li indi uute bi nag dafa amoon problème bu am diggante Amir Abdul Qadir ak ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmed Ammar moomu maanaam magu Tijaan yi fa nekkoon dañoo amoon gis-gis waroo gis-gis waroo gis-gis boobu nag moo indi indi woon jafe-jafe yi te loolu c'est normal ñoo xam ne dañuy combattre di xeex ku ci nekk am sa gis-gis loolu moo andi euh, andi woon loolu yëpp mais ca fin ba sax dem nañ ba nga xam ne gis-gis boobu waroo boobu dañ na maa dem nañ ba gindandikoo ñoom ñaar euh, Amir Abdul Qadir bind lettre boo xam ne lettre bu yéeme la bind ko góor googu nga xam ne moo doon magu tijaan yi nga gis ne euh, ay wax la yoo xam ne dañ koy wax rek waaw fii alxaaji Omar jihaar jim jihaar fii ci Afrique wane ne na tarixa tijaaniya du tarixa ay nit ñu yaafus nit ñi loo xam ne ay bañkat lañ El Hadj Omar na plus de lu ëpp soixante quatorze combats yoo xam ne xeex na ko ak tubaab bi tey ci ëpp yëpp moo leen gañe ba yàlla def mu sahit fële cee Bandiagara loolu rek doyoon na El Hadj rek doyoon na ak liggéeyam euh, Mouhamed Lamine Dramé kan la tijaani la xeex na ba ba dee ci ci ci ci mbir mi moom itam loolu itam wane na ne moom magu tijaan yi xeex lañ leen xamee woon ak rayante waaw gannaaw buñ jëlee yoon woowu nag ba nga xam ne tubaab bi gën naa not na réew mi ba réew mi nooy dañoo jël soppi seen stratégie changé seen stratégie waaw gis ne tubaab bi fi ne nii rapport de force yi yéematul waaw yéematul mënatuñoo nekk ak ñoom di xeex ci ay arm parce que amuñ doole boobu ñu ne léegi kon ni ñuy def mooy nañ changer stratégie jëfandikoo xel bañ a bàyyi xeex bi waaye xeex bi moom moo fi mos a nekk ci Cheikh Omar ak li ñu doon tuddee le mouvement omarien waaw omarien yi mooy ñi nga xam ne dañoo nekk ci silsila omarien ñooñu ñëpp xeex lañ leen xamee woon waaw gannaaw Cheikh Omar fii mel ni maam Alaaji Abdullahi Niass fii ci Saalum man suma maam bokk na ci xeex yooyu ñooñu jëlee woon Jolof ñu ñëw fii ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bari nañ lool maga tijaan yëpp xeex lañ xamoon. combattant yi gën a siiw ci Sénégal la bokk mu nga des fële ca Sombo kooku ci tarixa tijaan yi la nekkoon kon tarixa la boo xam ne euh, xeexal sa réew nekk ay patriote bañ ko la not ci caaxaan dañ koo mos a def loolu mooy li am ci démb ba tey ji biñ demee nag ba jamono dépassé xeex bi dépassé ay animosité dépassé ay defante ci doole ñu gis na léegi xel moo fi am ci la mag ñi la commencé ku ci mel ni Seydi Hadji Malick euh, dëkk ak ñoom ca Ndar boo demee zaawiyam ba mu ngi dend ak euh, kër commande kër commandant gouverneur général fa gouverneur quartier ba gouverneur général nekk fa dem dafa zaawiya nekk ak ñoom Dakar itam la même chose que zaawiyam sorewut palais ba fu yi nekk rek mu nekk fa loolu liggéey bu rëy moo taxit not na ci def na ci liggéey bu mag a mag a boo xam ne kenn mënu koo tuutal liggéey na ko ci xel ba lim bëggoon am islam tasaaroo ñëpp lim bëgg xam-xam yi dox tariqa bi tasaaroo te day xeex du am loolu mag ñi ñëw gannaaw gi ku ci mel ni maam Baye Alhaji Ibrahima Niass kooku moom hadis euh, wala haraj waaw خيخ جامونو خيخ اك دولي اك ارمو دفا دفاسي واي باي جامار لو بو نيك جامار لو نكو اك توبابي مسلين واخ لولين نيخ مستجف لانتك نيوم لولين نيخ ني رامبلاسي توباب بي صاح او دبي دفا اوتي اون اك نيوم كو ملني سينور دفا اوتي اون اك موم بوزيسيون باسكو ليب لو لال اسلام لاي باج waxto xamé né néwol nañ l'islam rek jël na position dal ci kaw tuwa bi waaw mo jur ifriqiya lil Euh, Afrique aux Africains bi nga xamee ne monseigneur Lefebvre dal na ci kaw l'islam di ko niirale ak euh, communisme di wane ne dañuy not ay nit rek waaw ak di toroxal ay nit bàyyi leen l'islam nangam nangam bàyyi daf ko tontu te loolu sax ci fin colonisation bi la maanaam boobu amaguñu indépendance bàyyi tontu téere boobu nga xam ne wan na ko ca lu bëree bëri laaj leeral ko ci lu baree bari lam ci waxoon yëpp yàlla def na ko no position yooyu la bàyyi mos jël bi nga xamee ne nag tubaab bi dem na itam euh, taalibe tubaab bi toog fii te mooy Senghor boobu itam la gën a lu luñ tëral loo xam ne dafa waroog lislaam mu xeex ci waaw buñ indee manuel yoo xam ne dafa ñëw ci biir euh, lislaam da cay laal islam te dañ koy jàngale ci école yi mu xeex ba loolu dañ ba dañ waaw code de la famille position am leeroon na ñëpp xam nañ ko def na tout pour dajale sëriñ si ñu nekk benn pour mën a jàkkaarle ak autorité bi nga xam ne li muy tëral tegu ko ci lislaam mais ci ay xalaati nit lañ ko teg kon Baye liggéey na ci wàllu googu waxuma nag liggéey yim liggéey ci biti ci Afrique rek fu nekk fu nekk mu tasaare fa lislaam te même fikir bi mu yore fii rek moom la yore boo demee foofu moom la doon véhiculer maanaam Nigéria loolu la fa doon doxal waaw jël ay position yu leer liggéeyal lislaam bam leer kon lii mooy tariqa tijaaniya du leneen moom la nekkoon démb moom la nekk tey xanaa ñu soññ suñ bopp soññ ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu rek nañ gën a gëstu te gën a fonk itam tariqa bi waaw gën fonk tariqa bi bañ ko yemer rek ci ay folklore mais mu nekk loo xam ne dañ koy jëmmal wane dooleem jéem a ànd itam nekk benn dox ci luy àndale ñoñ tarixa bi loolu lu am solo la parce que ay ahbaab lañ leen daan tuddee tarixa bi ñu ci nekk ñoom lañ daan tuddee al ahbab maanaam ñëpp ay soppe lañ ay ay ay ay ay soppe lañ ay xarit lañ kon loolu mooy li war a nekk ndax si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax Cheikh na Tijaani radiallahu anhu na ko waxal sa saxaaba yi ne lenn ci ñoom bu ñuy lor ñenn ñi ndax man loolu daf may lor loolu mooy lan mooy ab tijaan su loree moroom mu tijaanam wax ko ko war ta wax wala mu def ko ko defu ko mbokkam mooma kam ko def mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi te ku lor yonent nag alquran wax na ci lu leer ñooñu daf ne yàlla daf leen di rëbb ñii lor yàlla ak yonent ne na ñooñu yàlla dana leen rëbb ci àddina àlaxira yàlla nag kum rëbb doo raw kon ab tijaan yi dafa war a fonk mbokkam tijaan muqaddam yi ñoo fi des ñi des ñëpp ay muqaddam lañ tarixa bi ku dul Cheikh Tidiane muqaddam nga ci maanaam da ngay jël di jox nit ñi rek waaw léegi na yow sa muqaddam nga bëgg cee nekk topp ko ba saaga walla nga suufeel beneen muqaddam boo xam ne mook sa muqaddam ñoo yem ci tarixa bi loolu erreur la waaw erreur la soo daanee soo daanee sa mbokk ci tarixa bi rek sa mbokk muqaddam rek mooy daane nga sa bopp soo daanee sa mbokkum tijaan daane nga sa bopp loolu mooy li am nañ ànd nekk benn su ko defee bo julli bu tariqa tijaan ñëpp àndee ñu ubbi seen loxo yo julli ñëpp ànd day yomb maanaa kàndoo gi su rafetoon ci biir tariqa tijaan yi rek pour mu rafet ci biir àddina bi rafet ci lislaam day yomb ndax ñëpp tariqa tijaan mu ngi fépp waaw wax naa ko léegi ba Turc waaye raw na foofu dem na Amérique mu nga ca Singapour ak mu nga fu nekk mu nga Inde foo dem rek fu lislaam nekk ak tariqa tijaani mu nga fa kon dama ne bu tijaan yi yëpp nekkoon benn rek danañ inspiré ñu ci des te danañ mën a ànd ak ñu ci des ànd bi day daal di yomb ànd bi ñëpp di wër di ko di ko di ko di ko jooy ci jamono bi day daal di yomb kon euh, loolu lañ doon bëggoon suñ mbokk yi yëpp xam ko nit ñi jéem a ànd nekk benn ndax ànd boobu rek moo ñuy dimbale ci la ñuy mën a def li ñuy def li euh, lañ amoon pour participer ko ci gudd gu màgg gi nga xam ne euh, njabootu Mawlana Cheikh Al Hassan Deme ñooy ñi ko perpétuer continuer ko gannaaw bu ko seen wayjur bu baax woowu euh, sose sosal ko lislaam bi sosal ko tariqa bi yëpp mu nekk ndamal lislaam ci seen farlu ak seen itte ñoom it ñu taxaw ci di ko doxal waxtu wu nekk tàyyiwuñ jox ko itte ñu ngi leen ci ndokkeel di leen ñaan yàlla yàlla dëgël seeni taxawaay yàlla yokk seeni maqaama yàlla yombalal leen li ñëpp di te mooy alalu àddina te ko ci seen loxom bañ a yegg ci seen xol ba liñ bëgg a saxawalal lislaam ak liñ bëgg a def ci lislaam bi yàlla yombal ko waaw yal na leen yombalal loolu yàlla wattu leen wattu wattu képp ku leen dimbale yàlla na yàlla nekk seen dimbal ñu leen ñaanal loolu di ko ñaanal mboolem taalibe yi nga xam ne itam dañ daa ñëw bàyyi seeni i itte ñëw di ko fekke muy ay muqaddam yu koy def ak ñoo xam ne dañoo aju ca kër googu nga xam ne ci ca kër Cerno lañ aju ak taalibe yi fa aju ak muqaddam yëpp ñu ngi leen ñaanal yàlla di leen ndokel di len wax ne wa kullu amin wa antum bi alf xayrin di len ñaan yàlla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Uras Info xibaar Gao. Tewor, Uras Info l'info à temps réel Uras Info jàngat yu xóot notre force le traitement de l'info